yàlla ngi wax ci sóorat nuur aaya fukk ak juróom-ñeent inna alladina yuhibbuuna baatu yuhibbuuna boobu na ngeen ko bàyyi xel baat bu yaatu la yuhibbuuna an tashia alfaaxishatu waaye fan fi alladina aamanu ñi nga xam ne dañoo bëgg wane ne jullit ñi ñu bon lañ ñi nga xam ne dañoo bëgg a wane jullit ñu bon lañ ndax lu bon rek lañ def yéen ko yëgul loolu dafa am ay ay institution dañu créé ay institution jox leen ay jumtukaay pour ñu wane ni jullit ñi ñu bon lañ ñu bon lañ mais bu bu ngeen ko gisee da koo yëgul rek kaay leen ma wan leen nañu bon leen danaa ci dellusi am na fi ay émission yoo xam ne danaa leen tudd man aw moon habitude di tudd ay mbir ci sama njàngale mais léeg-léeg mu laaj ay ay émission yu tudd tës tës émission bi tudd xalaas loolu rek ay liggéey loolu rek mooy seen liggéey loolu dong mooy seen liggéey fisal mbon fisal mbon wala ni jullit ñu bon de lu bon loo dégg jullit yaa ngi koy def boo ko yëgee boo ko yëgul loolu mooy seen liggéey ma bëgg leen yëgal liggéey boobu ñuy liggéey li mu leen di njëkk a lor mooy toroxal leen fii ci àdduna parce que yàlla moo ko wax yàlla moo ne إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ñooñu lahum adabun alimun fi dunya adab alim yàlla bu nee lu métti métti na ndax yàlla daraam tuuti baatu adab rek doyoon na parce que adab mbugal lay fi yàlla neen ñooñu danaa leen mbugal waaye mbugal mu métti fi dunya wala fii ci àdduna sikki nekkul ci sikki nekkul ci képp ku ci métti ci métti yooyu te bàyyoo balaa yàgg nga torox bu ma ko fekkee bu ma ko fekkul nit ñi danañ fekk sa toroxtaay boo tuubu loolu teelu sax dem te ndax yàllaa ko wax te yàlla lu wax dëgg la ndax lu ma mës a wax dëgg la mu ne wallahu yaalam wa ahkum laa taalamun su yàlla ne bàyyi leen siwal mbon mi la muy jur yéen bu ngeen ko xamut it man xam naa ko su ma nee bàyyi leen siwal mbon mi siwal mbon mi bàyyi leen ko siwal la muy jur su ngeen ko xamut it man xam naa ko siwal bon lu bon la loo xam ne du jur jàmm a ah, aaya bi cheikhul mufassirin mi nga xam ne moom la ñuy dàkkanteel ibnu Juray ibnu Jarir at-Tabari dafa wax ne inna alladina yuhibbuna an yadi an yadia az-zina yudia az-zina wala yadia az-zina fi alladina saddaqu billahi wa rasulihi wa yadharu dalika fihim lahum adabun alim Juray daf Jarir dafa ibnu Jarir dafa wax ne ñi bëgg njaaloo siiw fan fi ladina amanu c'est-à-dire ñi bëgg a woon waa dëkk bi ne jullit yëpp ay ñaanookat lañ parce que booy déglu émission yooyu moo xam test bi la wala xalaas bi ñoom li la mooy benn jullit bu dul njaaloo amul loolu lañ bëgg a wax loolu lañ bëgg a ñu dem kenn wóolootul kenn kenn wóolootul kenn loolu c'est dangereux fi ñu Sénégal fi ñu Sénégal mooy ñëpp a bon ñëpp a bon du dëkk ñëpp bon lu mu néew néew am na ñoo xam ne duñ def mukk lu bon te di ko tey te ñu bëri lañ aussi duñu minorité dëkk la ñu bon am nañ loolu dafa yàq mook ñun ñoo am waaye yàlla daf nañ lu bon loolu bu ko kenn fësal bu ko kenn siiwal yow nga def siiwal lu bon muy sa micc te yu bon yu bëri ñuy siiwal du ma wax ne ko sos parce que aw ma droit waaye mën naa wax ne lu bëri ci liñ leen di informé ay sos la ndax nit ki tam wax naa ko ba tey mën a fen mi ngi tàmbalee ci mën a nett yi boo bëggee mën a fen rek jàngal nett ndax boo dee nett li di nett li ne cee informé il est vraiment informé il a vraiment des informations ndax bis boo amul informé information créée moo tax test yi ak wax sa xalaat bis bu ñu amul test bu bu ko bu daw yaram mën nañ ko créé dama xam ne dañ ko créé mais mën nañ ko créé kon léegi jóge nga ci fisal mbon dugg nga ci cadre fen nga boole fen ak ci fisal mbon loolu ku ko dëkki def ko métti bu sa xel dajee dalee tu n'as rien compris loolu ku ko tànn def ko métti bu sa xel dalee ngay tëdd di nelaw tu n'as rien ndax ku yàlla tëkku war war nga sa fit war naa dem ku yàlla tëkku sa fit war naa dem te képp kuy météo fesal ay mbon yàlla tëkku na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moom la yàlla sas mu firil ñu alquran moo tax ñaare fu alquran yëkkatee kàddu bu daanee la rek yonent bi feelu ko yonent bi mu ngi nii di feelu aaya bi ci hadis boo xam ne Abu Hurayrata moo ko dégg ci moom yonent bi lan la wax ummati muaafan kullu ummati muaafan illa almujaahirin wa inna min almujaahara an yacmala arrajulu billayli camalan summa yusbix wa qad sataahu llahu tacaala fa yaqul عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويسري يكشف ستر ربه عنه yàlla ci sama xeet yi ñoom ñëpp mën nañ cee génn ñoom ñëpp ci mën a génn pourtant xeet wu mën a mooy yàlla lañ xeet wu mën a juum lañ yàlla ci biir nee ñoom ñëpp mën nañ cee génn cest seen mooy yàlla bi mën nañ cee génn ñan ñoo tuddul génn illal mujahirin lu dul ñiy def lu bon di ko ñiy def lu bon di ko nekk li ñiy lu bon di ko wax ñooñu moom duñ ci gën yan ci mooy wax ñooñu duñ ci gën même buñ deful lu bon comme ñoo koy toxal duñ ci gën kon ndeke nit ñi saggan ñëpp di mooy yàlla mën nañ ci gën yan ci bi nee n danañ ci gën kenn dong moo ci dul gën mooy ki bon ba pare di ko nekk ñu ne ko loolu jublu ci li nga wax mu ne benn waaye ngi nii boo xam ne yàlla daa def guddi def bëccëg lu bëri loo xam ne soo ko defee ci bëccëg bu mu feeñ ñu may leen ko def ci guddi gi te du feeñ guddi nekk sutura nit ñi reer tëdd nga reer dugg dëkk bi jaxase dëkk bi toj ko balaa fa jot nga dellu kër ne xiim te kenn du la xamal dara kenn xamalu dara pourtant am na ñu xam ne tam dañ koy téye seen lam yi mooy borom bi tabaraka wa taala loolu maa la ko may sarax naa la bu fi nekk nag di baadoo la ba nit ñi xam li nga def def lu bon rek doy leen baadoo waaye def lu bon ba pare nit ñi xam loolu moom yambar mu nekk baadoo la moo koy yàlla ne neel mii bu ko kenn déggati bu ko kenn déggati waaye bu dee am njàmbar baadala moom danaan biig day xaar ba bët set mu fekk ñu yëgul dara xamul mu naan biig sama guddi gi ni mu neex def naa nangam def naa nangam def naa nangam xam nga kooku amul chance koo xam ne yàlla dafa ne ku ma mooy ma dumal mu mooy yàlla suturaal ko mooy ne ko bu ko man ak yow la noonu fii moom du ma la fi yàqal dara bu yomal xaame ñu seet ba xam moom du la fi yàqal dara parce que li def su ma ko waxee yi seen affaire yàq parce que ñoom ñëpp dañoo def ne ku baax te yow xam nga ne baaxul mais ñàkk baax bi maa yow rek ko xam tegal si tànk foofu bu yomal xaame ñu seet ba waaye yëpp yàlla ba xam bat non ñun yàlla muñ ko fay yàlla xam na yonent bi nee na yàlla nee na ko ci ci hadiisu qudsi bu yombal xiyaamee dana wéet ak mooy kat boo xam ne daa suturaaloon boppam déew moom dafay da koy xëcc génne ko groupe bi li ma hadiis gën ne ko may sawaay may sawaay yow gars yi li ma defee ko baax na nga ne waaw moom dañ maa xamul rek waaw xam dañ laa xamul rek ku defoon nangam ah non non kay moom kay maa ko maa ko def de ok yaa ma suturaat mu ne léegi nag nga ne yàcc waaw léegi nag parce que yow xam nga li nga ni nga mel bi nga waxee ni ñu nga fucc yàlla ne dafa ne man dinaa am mbaadoo la bu doy fa nga may njëkk a tooñee fa ma la mën a njëkk a toroxale